salaamaaleykum yow mi siy far sunu sécurité dalal ak jàmm si video bu bees bi sunu formation bi nga xamante ne ci lañ lay yoon nan nga yokkee sa kaaraange ci internet bi tey dinañ wax ci lan mooy antivirus ak entreprise nan lay liggéeye wax ci yenn yoon yi wan la yenn site yoo xamante ne dañ si mën a jariñu balaa loolu ñu ngi lay ñaan nga abonné sunu seen YouTube bi partage vidéo yi ngeen ñeneen jariñu si antivirus buñ ko waxee am ñu anti malware ba léegi day nekk benn mën naa nekk benn programme boo xamante ne dañ koy utiliser boo koy utiliser sa machine lan lay def day jéem a détecter bépp fichier boo xamante ne day dugg ci sa machine bi moo xam ci internet bi nga ko awee ci kale la wala feneen ak feneen day jéem a détecter ba xam loolu day bu duggee day loolu sa machine bi wala déet. bu ko détecté mu nekk ko mu jëm ko supprimer bu ko supprimer wul tamit def ko ci benn quarantaine boo xamante ne yow da fi mën a dem supprimer ko wala nga mën a wax ne li nekkul virus pour mu génne ko fa kon programme bi koy utiliser ñun dañ koy utiliser ngir aar sunu bopp ba virus bu ñëwee du dugg ci biir moom antivirus wala anti malware malware bu ñu ko waxee mooy benn tour la moo gën a yaatu xam te ne ay virus ak yeneen xeet yu naan ay trojan mu nekk ay programme yoo xamante ne mën nga koo télécharge jàpp na dalay jëriñ ndekete dalay lor ay worms ay adware yi génn ay publicité euh, yoo xamante ne dalay traqué wala ay spam ak phishing yi nga xamante ne am na antivirus yoo xamante ne sax comme bu la ko envoyé sa email euh, mën na jéem a détecté ba xam site bi ngay dugg euh, site bu baax la wala site boo xamante ne la benn waay rek moo ko defar pour nax la wala li la envoyé ba xam virus la wala nekkul virus nga xam ne fi muy dugg moom bëri na moom antivirus moom antivirus boo ko téléchargé sa machine wala nga yor ko wala foo ko fu mu mënta nekk mën naa am ay mode comme mën naa nekk real time mooy euh, toujours day active daal lu dugg sa kale rek benn bépp fichier boo xamante ne day ñëw rek moom da koy analyser comme boo yoroon benn kale dugal ko sa machine automatique di koy jéem a détecté xool fii sa ya fa nekk xool ba xam virus la wala nekkul virus lu lay lor sa machine bi la wala déet boo demoon ci internet bi tamit télécharge dara automatique bu loolu di wàcc rek moom analyser ko xool ba xam euh, moom euh, kii na am na virus wala amul virus wala yu demee noonu ne virus euh, ay virus ak trojan yooyu yëpp lañ si jub li nga te ne mën na ko détecté te muy lor sa machine bu nekk real time mën nga koo désactiver bi ñëw yu si bëri real time lay nekk par défaut mu nekk manuel yoo xamante ne yow euh, yaay xool saa su la neexee nga dem bu la neexee nga toog semaine ñëw analyser machine bi yëpp bu neexee nga toog euh, par 3 jours par 15 jours wala saa su neexee daal ngay dem analyser machine bi xamante ne du nekk euh, real time xamante ni kenn bu ñëwoon dugal kaleem mën na ko bañ a analyser xool ba xam virus la wala nekkul virus dara bu wàccee wala yu demee noonu. moom nan lay liggéeyee boo amee benn fichier hmm. ak bu mu mën a doon fichier daa am nañ koy xàmmee mën naa am ay euh, signature moo xam photo wala nangam machine yi am na ay signature yoo xamante ne moom la koy jox ñi defar antivirus tamit dañu yore ay base de données yoo xamante ne day am euh, day am euh, ay signature signature yoo xamante ne comme mën nañoo dajalee ay virus yu bëri comme ne programme bii nii lii mooy signature am bépp programme bu yor signature bu mel nii man dama koy jàpp virus xamante ni ñoom ay base de données lañ ci yore yow léegi boo amee benn fichier bu ko awee ci liggéey liggéey bi nga xamante ne ba signature lay topp lu ñëw rek day jël comme loolu noonu programme boobu xool signature bi lan la daat koy comparer ak ñi nga xamante ne moo nekk ci base de données yi xamante ne automatique bu ko comparé ñu nuroo mu jàpp ne lii virus daal la koy détecté ne la lii virus la buñ ko comparé bokkuñu Euh, amu fa day di koy jàppe ne comme nekkul virus mooy bi nga boobu mooy yoon bi nga xam ne moom leen di wax signature euh, base de détec euh, détection mooy moom fichier bi lay jël daal di xool signature yi bu nuroo te mu nekk si base de données bi base de données bi mooy yi nga xam te ne moom la waa antivirus yi di defar xam te ne ñoom virus bu bees bu ñu am rek signature bi dañ ko fa yóbbu moo tax boo koy mise à jour comme virus yu bees yi da koy man di détecté xool ba xam di mën a comparé ba xam lii ñu virus la wala nekkul virus am na beneen yoon yu bokkul tamit waaye beneen bi am na bu ñuy wax comme behavior xamante ne moom lañ lay def moom automatique bañ comme du xool signature bi rek waaye comme man ngaa yor benn programme exemple boo xamante ne day euh, enregistré sa écran wala dara day xool ba xam moom euh, programme bi ni mel ndax dëgg dëgg loolu rek la war a def daal ko xamante ne day xool ni virus di di liggéey bu duggee si machine nan lay mel xamante ne boo téléchargé benn programme boo xamante ne comme euh, yow day note nga siy def rek ay note lay bind ak yooyu noonu moom day ñëw bu xoolee euh, comme ni programme bi di doxee ni muy liggéeyee bu nuroog comme ni virus di baaxoo di liggéey ak virus yi comme ni mën a doon bu dee comme virus yi am na nu ñuy def bu ñu liggéey ci machine bu ñu ko xoolee ñu nuroo rek automatique da koy détecté xamante ne moom day xool ni programme bi di liggéeyee xool nan lay def ba xam euh, comme exemple programme bi note la la war a def mu ñëw indi yeneen yoo xam ne boo bokkut ak moom bu dee antivirus yoo xamante ne day dañuy sukkandiku si loolu si mën naa xool ne ah lii de nuroo na ak ni virus di liggéeyee comme jàppi ko virus. am na yeneen yoon yoo xam ne bokkuñu si waaye yenn yoon la yoo xamante ne pour nga comprendre euh, antivirus yi am na ay yoon yu bëri yoo xamante ne dañ koy détecter euh, ay virus problème mooy comme bi signature amee ñu nga ñooy defar virus yi ñoom dana jël seeni machine di tenter fexe bay jéem a weesu yoon yooyu ñu génne yeneen yoon yu bees xamante ne mbir mi moom am rawante la mooy ñuy defar virus ci euh, pirateur yu demee noonu ak ñi nga xamante ne ñooy nekk yëf antivirus yi di defar loo xamante ne day détecter virus yi nga gis ne kon euh, antivirus bi moom euh, rawatina yi nga xamante ne dañuy basé wu si euh, comparé signature demee noonu gars yi mën nañoo defar antivirus boo xamante ne day soppeeku xamante ne ñoom mën nañoo defar comme ay virtual machine defar ay virus yu bëri comme bu duggee sa machine bu antivirus bi melee nangam na ko soppi bu mu liggéeyee nangam waaye na liggéeyee nangam comme ça yi nga xamante ne day compliqué ak yooyu noonu. mën naa ñëw antivirus bi mën koo bañ a détecté wala boo xamante ne comme bu bees tàq la signature yi euh, tasaareegul yoon wi ni liggéey tamit xamaguñ koo gi mel noonu euh, bu duggee si machine antivirus mën na ko euh, bañ jàpp nga gis ne kon ñi nga xamante ne yu siiw la moo xam li muy liggéey la wala signature yu demee noonu buy ñëw automatique rek antivirus mën na koo gis waaye bu bokk te yooyu noonu mën naa ñëw dugg sa machine nekk virus te antivirus du ko mën a jàpp léeg-léeg nga gis koo xam ne day laaj naan ndax euh, Windows rek ay yor virus man Linux laa yor du am virus yu demee noonu operating system yi nga gis yëpp moo xam ci Linux la moo xam ci Windows la Macintosh si téléphone yi yëpp a jël virus xëy na kay dañ ne comme Windows day ëpp wala Android day ëpp lu tax ëpp googu noonu mooy ñiy defar virus yi comme doon yow da ngay defar virus doo xool fa ñu tuuti ña nekk nga nga ko fay sànni waaye dangay ngay xool fa ñu bëri ña nekk yi nga xamante ne yow. jàpp nga da fa gañee xaalis bu bëri wala da fa euh, defe nangam yàq te yàq gu bëri ñooñu ngay defaral moo tax comme virus yi di gën a bëri Windows boo ko comparé yeneen yi waaye yëpp ay jël euh, virus bu dee euh, dañu wax ci wàllu sécurité ak privacy confidentialité day jar ñu bàyyi xel comme antivirus yi nga xamante ne yor fàttali ne gis nañ fi ay antivirus yoo xamante ne dajale na ay information comme euh, yow li ngay wër ci internet bi euh, euh, comme li ñuy wax historique yi dajale na ko di ko jaayaat ñeneen ñi ngir ju ci commerce gis na fi entreprise yoo xamante ne tamit mën nañoo defar ay door pour ubbil buntu moo xam lu jëm ci wàll gouvernement yi la wala ñi nga xamante ne noo yore doole gis na entreprise yoo xamante ne tamit comme HTTPS xam nañ ko ku topp comme euh, série vidéo yi xam nañ ne comme HTTPS ak njëriñam ak yu demee noonu pour continuer yu kenn bañ ko mën a lire ak yu noonu am na antivirus yoo xam te ni comme jéem ñoo euh, intercepter HTTPS yi nga xamante ne comme yi nga xamante ne dañ ciy dugg si li nga xamante ne dañ ci dugg te muy am HTTPS ndax euh, ñoom bala ñoo mën a xam comme site boo xamante ne HTTPS la ñu mën a détecter détecter ba xam lii de comme site bi ngay dem. Euh, wóor na wala wóorute yu demee noonu te mu nekk HTTPS il faut ñu am benn méthode comme lu proxy yu ñu yu ñu implémenté yu demee noonu pour mën a xam loolu noonu am ñoo xamante ne nag dañuy weesu yoon woowu di jéem a intercepter euh, trafic yi jàll bokk na si tamit euh, am yoo xamante ne dañ lay jéem a traqué rawatina li problème benn mooy. yu euh, jëm si si sa wàllu confidentialité ma comme te ni dajale say information ci yenn yi moo xam si di ngay dugg moo xam di la jéem a traqué du ko jaayaat ñeneen rawatina bu nekkee xamante ne gratuit la nga bëgg sa xaalis ak yu demee noonu euh, lu jëm si wàllu confidentialité bi day jar a bàyyi xel léegi waxuma ba xam antivirus yëpp koy def wala déet waaye gis nañ fi euh, ay antivirus yoo xam ne def def nañ comme yi ma tudd fii nii te xëy na am na yoo xam ne ñu ngi koy continuer di def kenn xamul ba xam. moo tax bu dee comme lu jëm si confidentialité di la yëtteel ak yu demee noonu nga koy bàyyi xel bu dee entreprise am na ay xeet yu bëri yoo xamante ne mën nga ko télécharger euh, sa machine wala sa téléphone ak yu demee noonu comme di nga gis koo xamante ne comme bu yoree exemple de day utiliser Windows am na yoo xamante ne Windows Defender rek lañuy configurer bàyyi ko noonu ñoom euh, dañ naan soxla wuñ jeneen Euh, te boo xamee noo koy noo koy contrôler yooyu yaakaar na euh, du koy jar am na ñoo xamante ne da leen jaral comme ñu jënd ñu ni jaay ay Kasper Kaspersky ay Izetta yu demee noonu waaye bu dee euh, da laa soxal lu mel ne lu jëm si open source yeeg yooyu am na Clam AV wala Clam Windows AV bi dee Linux nga yore mën nga koo utiliser di ci scanner yenn fichiers yi bu dee. clam win mooy yi nga xam ne Windows la mën nga ko télécharger tamit utiliser ko open source la bu la neexee bëgguma recommander benn entreprise moo tax ndax euh, fi mu toll nii presque benn rarement laa ko utiliser te li ma ko utiliser yaakaar naa euh, utiliser ma yenn entreprise yi moo tax bëgguma recommander yenn yi bu dee Linux nga yor tamit mën ngaa utiliser euh, sec rootkit pour xool ba xam. am na ay roadkit yu muy jàpp wala yu demee noonu waaye ñu ci man mënti am moo xam antivirus bi ngay téléchargé bu dee téléphone moom boo defee ndànk xam ni nga koy utiliser yooyu antivirus euh, mën mën nga koo moytu daal comme yenn yi du ko jër rarement nga gis léeg-léeg comme antivirus yi ci yenn téléphones yi moo xamee comme ni ngay utiliser téléphones yi si yi ngay dugg yi nga dugg buñ la envoyé li ngay dugg wala yi ngay kii yu bëri dina la ko wàññil. donte boo demee ci euh, F droite entre antivirus da nga fa fekk yenn antivirus bu la neexee mën nga ko télécharger open source la euh, bu dee euh, iPhone moom boo xamee ni nga koy utiliser tamit yaakaar naa du ko du ko du ko jar mu ngi dépendre daal si nit kay yu demee noonu bëgguma recommander benn antivirus moo tax. waaye lu mu ci mën a am ak boo mënti yore dee ko mise à jour ndax bu mise en jour comme antivirus yi base de données yi nga xamante ne mooy yore signature yi muy gën a am njariñ bu dee da koy euh, utiliser bu dee tamit lu jëm si wàllu confidentialité de la yitte la yooyu lu jëm si cloud protection euh, ak euh, télémétrie yi nga xamante ne antivirus bi da koy envoyé yenn sample yi nga xamante ne da koy envoyé comme fii say mën nga ko désactiver bu dee dalaa yitteel pour bañ a envoyé bu dee da ngaa yor fichier yoo xamante ne yu am solo lool la nga bañ mu envoyé ko ci euh, moo xam benn entreprise wala benn euh, organisation bu dee da ngaa yor fichier yoo xamante ne nekkul yu euh, sensitive yoo xamante ne ku si amoon accès tamit du lu amal problème mën ngaa utiliser comme ça site yi ay virus total point com hybrid analysis yu mel noonu pour Euh, analyser comme yenn documents yi lay envoyé walla yenn sites yu mel noonu comme exemple bu ñu defoon nii ni euh, duggoon ci si sites yi hmm. couper ñaar yoon pourquoi ah benn ndànk na di copier wu problème ay virus total eh, hybrid analysis si di def foofu noonu rek comme moo duggoon sa virus total bu dee fichier bi bu dee dangaa yor yenn fichier yoo xamante ne yu Euh, sensible la buñ ko comme ci di boo ko fi dugalee da nga koy garder te am na si yoo xam ne buñ ko garder dañ si euh, defaat yeneen di si jàngat wala di si commerce yu demee noonu kon euh, yenn xeeti fichier yi rek yi nga xamante ne amul problème yi la envoyé mën ngaa bis choisir fichier mm, après nga tànn fiise bi automatique mu analyse ko wax la ba xam ci antivirus yu bari wax la ba xam am na virus wala déet bu dee lien tamit mën nga koo dugal fii xool ba xam wóor na wala wóorul fii mën ngaa xool tamit comme noonu moo xam lien la moo xam xaas la xaas mooy comme xeetu fichier bu ne day am signature mën ngaa télécharger programme bi ci Windows xaas my files bu ñëwee euh, langue si suuf man ngaa tànn langue bu la neex nga télécharger ko bu ñëwee comme fichier boo si dugal dinaa la jox signature bi nga indi ko fii nii euh, boo ko indee fii euh, automatiquement dina comparer ak yenn xaalis yoo xamante ne dafa nekk ci base de données bu amee virus wala euh, déet comme bu ñu demoon euh, def lu mel ne euh, def ni moom laa gis yenn exemple xaas xaas virus hmm. comme mu duggoon si bi moo utiliser programme bi automatique moom euh, comme dina la koy détecter ne xaas bi moo nekk ni bi dee am D5 euh, boo xamul xaas wala yooyu lu leen tàqale seen formation IT fondamentale si leeral nañ ko fa bu baax comme ni comme boo duggee programme bi comme virus la mën ngaa jël benn xaas yu bokkul comme ma jëloon bi euh, indi ko virus total comme recherche ko entrée bu ma ñëwoon fii tëb comme noonu man ngaa choisir fii nii euh, lien bi mu analyser ko wala nga bës fii nii tànn fichier bi wala nga ñëw bu dee fichier yu bëri la nga def ko fii moo xool rapport dugal benn site wala benn xaas mën nga koo dugal fii def recherche wala mu utiliser Yara Search String Search Yara Search benn jumtukaay la boo xamante ni comme ñiy détecter ay virus ak yooyu ñu si liggéey dañ koy utiliser pour du xool yenn yi bu ñu amee yenn yenn yenn euh, sample bu ñu ko amee mën nga koo dugal fii euh, wala yenn teg si mën nga koo dugal fii xool ba xam ak yeneen base données yi ba xam dina gis virus wala déet comme lu mel ne rapport Search da gis mu def fii xaas bu dugalee même xaas bi comme fii. danaan la virus la gis nañ comme virus la 54 euh, antivirus gis na ko gis nañ ñëpp détecté nañ virus yi gis na boo liggéey ci li xool yenn virus yi xay ne da nga gis antivirus bi la dàqal nga utiliser ko di la wax ne détecté keneen ko nangam ak nangam indi la détails yi yu mel noonu yi yëpp kañ lañ ko créé 2020 comme boo duggee fii tamit boo xoolee. da wax ne kañ lañ gis virus bi 2020 nangam nangam fii tamit ñoo la fi mel la lay jox ne la euh, scope bi 100 cent la 89 pour cent si antivirus gis nañ ko nga gis ne yëpp jox la ne virus bi di doxee comme screenshot jox la si photo bi yu demee noonu gis na si du am solo la yoo xam ne mën nga ko utiliser bu la envoyé yenn site yi yenn euh, PDF yeeg yu demee noonu. Euh, wala yenn mail yi sax mën nga ko dugal fii ndax wóorul benn fii fichier PDF rek euh, mën nañ la see platé yu euh, demee noonu gis ni ay sites yu euh, am am solo la ñii liggéey ci malware ak yu demee noonu day baax lool comme ngay utiliser virtual machine mën ngaa utiliser virtual machine boo koy utiliser moo xam benn machine comme virtual box bi mel noonu configuré ko ci yoon woo xamante ne wóor la di si essayer euh, di si tenter yenn fichier yi mooy gën a wóor nga koy utiliser sa machine noonu muy laal si euh, virtuel yu demee noonu comme mën ngaa utiliser benn Windows boo xam ne virtuel machine la benn Linux boo xam ne virtuel machine la di si récupérer yenn fichier yi comme mu bañ a am euh, accès automatique ci sa machine donte yenn virus yi mën nañoo naxe lool kon li moo nekkoon vidéo bi yàkku seen yaay ba ni sunu seen youtube bi partage vidéo yi boo amee benn question mën nga koo def ci commentaire yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.